oto yombul ndax man ma nga jóge tëngéej mais même taxi sax do ko gis dama obligé jël tata bi 77 ba fi terminus jëppal ma jël benen auto eh, pour eh, dem ville mais c'est difficile def na fi une trentaine de minutes hein waaw fani mom auto oto dafa xawa ñak mais comprendre nañ affaire yi quoi comme ak feebar bi ni auto yeb mënu ñu jugandoo quoi normal ko auto yi ñak parce que nit ñëpp mënuñu xolo dugg ci auto ak ak euh, virus bi nek ni lolo tax dal organisation bi ma gis dal du organisation bu baax parce que tamen mënu mënu mo concevoir lu melni tata ñu ne euh, chaise yi ya fa doyul chaise bu nek ben nit fay tok ala nga bëgg genn lolu moy mo moo indi sax boy set euh, confusion bi am demb ci ndax ci ñu bari téluñu ag seen kër bu fekkene na auto yi dañu limiter nit ñi ñi jël.

moo ko on est obligé parce que les mesures yo xamné waron waroon nañ ko jël avant d'accord mais les situation oblige donc euh, pour éviter yenn contamination yi il faut ñu wàññi nit ñi kaar yi ak yooyu wàññi nit ñi nit ñi mëna dem. Dakar Dem dik ñoo wara a sen bus aussi. Il y a pas assez de bus nañ génne bus yi nit ñi mëna dem liggéey ñom rek ñoo mëna arranger situation bi.